attaani ñaareel bi allah yakkoona mooy mbañ a nekk ma mooman di maamoom fa mu niqtadaa ku roy bi mas boo xam ci ku ñu raw aw bi ma amoon wala ci maamoom aw bi ma moomin wala ci maamoom dar na xoo moom jortoon na ko imaaman muy ilimaan batalal kon yàqu salaatu foo juleem nga ñaareel bi mooy ka lay jiite bu mu njëkkoon a nekk maamoom ci julli googa tey boo gisoon kuy julli nga defe ne moom julli bopp la yore ndekete yow moom day tolloo la jàkka ja mbaa ci jumaa ja nga ànd ak moom da ngay yàqule da nga roy ci moom mbaa boobu ngeen ñëwandoo fekk ñu raw leen bi noppee bay fay kenn ku daa war a fayal boppam bu ñu dee fay ku ànd ak keneen rek roy ci moom kañ roy ci moom moom baaxle na waaye ka roy ca moom nag te fekk ñoom ñëpp ñu raw leen ko roy ca moom du baaxle waaw ki roy moom du baaxle kañ roy ci moom rek mooy baaxle kon day aajowoo ñaar wala ñett bu ñëwee fekk ñu raw leen bu jógee ba ilimaan sëlmal maanaam bu ilimaan sëlmalee bañ jóg daal na kenn ku ne fayal sa bopp waaye bu amee kenn ku ànd ak moroom ma ca fay ga rek ka jiite wu dana baaxle ca fay googee waaye kañ jiite mooy karoy moom du baaxle asaali su ñetteel bi al islaam moo di ak jullit maanaam ka jiite na nekk ab jullit boo gisan koo xam ne ab yéefar la muy julli nga roy ci moom fekk xamoo woon ne ab yéefar la gannaaw ba ñu xam ne moom nekk ab yéefar la woon da doon julli rek noonu di nax jullit ñi wala yooyu lam la jiite du baax faaw nga baamu lam la jote jiite arraabixu ñeenteel bi ak dukóorat moo di ak ngóor falaa tasexu du wér imaamatul mar'ati njiitub jigéen mutlaxan ak nu mën di demee maanaam faawu ilimaan ba góor lay doon waaye jigéen moom du mën a jiite jigéen sax ne moom rawante na góor alxaamisu juróomeel bi alboloox moo di kàll fega falaa tasixu du wér imaamatu xayril baalixi njiitu kudul aji kàllafe fil fàll ci farata ilaa li mislihi dara ñeel moroomam maanaam koo xam ne kàllafewut mën naa jiite gone ne moom ku kàllafewut waaye nag bu jiitee mu kàllaf mu kàllaf ma du baax le ndax ki nga xam ne kàllafewut ak julleem daanaka moom naafi la ñooyam te ki kàllafe moom farata lay joox kon nag faaw day aajowoo mag ma jiite da nga mat na ilimaan waaye bu gone nga jiitee mag ma rek mag ma du baax le waaye ba tey bu dee jullit naafile ni ki naafile weeru koor taamu ñu jekki-jekki jiital ku kàllafewut ni ki gone muy jiite ay mag teewul nag buñ ko defee mu baax buñ ko defee ñu bàyyi ko ca bu dee naafile weeru koor wi gone nga jiite ay gone ne moom loola baax na waaye gone nag jiite ca mag nag ah waris koonu def du tee nag buñ ko defee mu baax assaadisu juróom-benneel bi alxaqlu mooy xel fala tasixu du wér imaamatul majnooni jiitug ab dof wala sakraan du caageenu aji màndi faawu koy jiite day ànd ak xelam ak sagoom waaye bu doonee ab dof wala mu nekk ku màndi bu jiitee rek kam jiite du baax le assaadisu juróom-ñaareel bi alxurriyatu moo di ak ngor waxiye moom nag chartu sart la fil jumuhati julli jumaa maa julli jumaa dañ ci dolli ñaari sart te ilimaan ja mooy mu dëkk fa mbaa mu yéene faa sax ñeenti fan ak na ngor gi mu ci wax ndax bu doon aji tukki rek joo xam ne yéene wut sax ñeenti fan julli jumaa du ko war bu ko war du ko mën a jiite ba tey bu dee yooyu jamono jaam julli jumaa waru ko da nga waru ko nag kon du ko mën a jiite ak taamin juróom-ñetteel bi asalaamatu mooy mucc nel fiski ci caay-caay bil jaari xet ci ab cër bil jaarihati ci ab cër fala tasixu du wér imaamatu zani jiitug aji njaaloo wa shaaribil xamri ak aji naan sàngara sart juróom-ñetteel bi mooy kay jiite na mucc ci mooy yàlla ci ay cëram te di ko fésal léegi bu dee kuy njaaloo mbaa kuy naan sàngara kon du mën a jiite waaye jàppal ni wax ji gën a wóor mooy ndegam caay-caay gi ajugu ci julli ga da aju ci li mu wax mel ne njaaloo mbaa naan sàngara bu la jiite itam mu baax ndegam rek caay-caay ajuwul ca julli nga bu la jiite mu baax nga amoon nag ilimaan ju baax ju maandu joo xam ne du def bàkkaar yu mag yooyu moo gën waaye nag bu dee def bàkkaar yu mag itam du tee bu la jiitee mu baax lay bon kay mooy caay-caay aju ci julli ga ni ki dañ doon xëccoo jiite ga te loolu xam nga ne ak rëy mooy waral xëccoo ak jiit wala muy ñàkk a fonk laab gaa ngi demee noonu nga xam ne kon dafa kàccoore ba kàccoore gay laal julli ga koku mom bu la jité du bax ak taasi hu juróom ñentel bi al qudratu moy atan nga moy man nga hal arkan ci ponk ya fala tasihu du wér imamatul haaji si njiituk aji lot andul koy walis roko masalan ci misal ila an yakon rek ba fa nek al ma'mum ma'mum aidan batay haaji san ci aji lot an walis ko sartu juróom ñentel bi moy na iliman mëna def ponk yi melne na mëna jang fatiha man roko mëna sujud waye bu fekke dafa lu mënta jang fatiha ba da mënta roko ba da mënta sujud kon du mëna jité ku mën loola waaw kon du mëna jité ku mën loola waaw niki bu fekkee dafa tëlee jàng fatiha du mën a jiite ku mën a jàng fatiha bu tëlee ruko wala sujur ba tey noonu du mat ilimaan faaw day aajawu man ponk yi su maa moom mu tëlee ne moom nag yemoog moom nag waaw su boobaa kon baax na jiite ga du wàññee wa kasaalika naka noonu alxaajisu aji lottu ja xan ahkaami salaati walis xam attey julli ga wala tasihu du wér imaamatuhu njiitam nga ilaa li mislihi dara ñeel moromam bokk na ci sarti ilimaan kooka xam ne àtte julli ga la koy tax a wér ak la koy tax a yàqu waaye bu fekkee xam ne wut àtte julli gi du mën a jiite lu may ku mel ne moom te sax li li gën a wóor mooy képp koo xam ne xamu àtte yooyu da ngaa war bu julli jotee nga dem seet ko ko xam mu jiite la waaye war laa julli yow doomu da nga mën nga am ku la jiite war laa jiite kenn itam ku mel ne yow da ngeen war a ànd dem fekki ku xam loolu mu jiite leen waxtu dafa wuuteef na hal tasix wa ndax dana wér imaamatu man jiitu koo xam ne lam yu mayis mën taràññeele bay na daadi diggante ak daad wa zaayi ak zaa maanaam wuute nañ ci jiite koo xam ne kii mënul maxaarijul xorof maanaam génne araf yi fa ñu leen war a génnee la ci gën a wóor nag mooy su fekkee ne mën na ko tàyyeel dong moo tax du ko def moom du baax waaye nag bu fekkee da koo mënut tayel warulu ko moom dana baax wa imaamatullahi ni ak njiituk aji yàq ba tey kay jiite di jàq di yàq njàng ma wax ji gën a wóor mooy su fekkee teyu ko rek yàq ga du wàññi dara moo xam ca fatiha ja la moo xam ca saar wala mbaa ca leneen la waaye nag nga xam ne ilimaan yu nga xam ne ilimaan ji da yàq ba noppi nag nga waaxu dem mu lay jiite nag loolu moom taamu wuñ ko boo xasee xam ne moom da yàq ci njàng ma rek li ci gën mooy nga bañ a dem mu lay jiite waaye wax ji gën a wóor daal moom mooy su fekkee ne yàq ga du ko tey daal moom du yàq njiit ga ku jiite itam mu baax waaye boo ko si xam ne yàq nag moom sib nañ nga song dem ànd ak moom mu lay jiite wa tasixu dana wér asalaatu julli ga xalfal muxaalifi ci gannaaw aji wuutante ja fil furooxi ci bànqaas yi ak zaniyet yi ko ju njort bangaasi ko jug njort mooy bangaas fiq yi atay fiq yi rek lay bëgg a wax kal malik yi niki ko jug malik xalfa shafi yi ci gannaaw ko jug shafi yi nee na ñaar bu fekkee bokkuñu gis-gis ci atay fiq yi mel na kee nekk ci yoonu malik kee nekk ci yoonu shafi yi mbaa beneen beneen ngir du teem ku ne ku ci ne mën naa jiite moroom ma wute ga gis-gis ci atay fiq yi rek du wàññi dara faslun shurutu sihati salatil ma'mumi sarti wéruk julik ma'mum xamsatun juróom la li tax julik ma'mum wér juróomi sart la al awal ba ci jëkk al iqtidaaw mooy yéene gaa roy waxoo moom ay yanu ye mooy mu yéene ne àllahoo naka moom ma'mumun ku ñu jiite la bil imaami ci ilimaan ba wa anna salatahu ak naka juleem ga wa anna salatahu tabihatun aji top la li salatihi ñel julik limanam fa in tabahu dem top nako min khayri ni yet ci lu yene batal ko yaqku salatuhu juleem ga bi ñëk neena moy nga yéña roy ci ko ki lay jité xamne sa julli mi ngi japp ci juleem rek su baxé nga baxlé bu yaqulé nga yaqulé xam ne kon boo jekki-jekki ànd ak moom ci zahir ni te yéene woo ànd ak moom ci baatin ni ki danga dangaa jàpp ni mëtu nga ilimaan te ba ngay tàmbali gannaaw ba nag nga xam ne moom mii kat mat na ilimaan soo yëgoon yéene yéene jur ci ànd ak moom koyit say boo daal di fexe ba tàmbaliwaat waaye bu wéyee ci noonu rek ndax nag ma ngay tàmbali amoo woon yéene roy ci moom nga ca àndal noonu ci zahir rek xëy na ngir rus bàyyi demee noonu waaw day aajowoo nga yéene ànd ak moom ca ba ngay taamu sug julli yéene roy ci moom jàpp ne su baaxee nga baaxle su yàqule nga yàqule
ba tey nu seetlu ne ànd ak ilimaan kat dañ koy yéene ca njëlbeenu julli ga boo tàmbali woon a julli yow dong gannaaw ba nag keneen ñëw di julli fi sawet doo jekki-jekki daal di wéy ànd ak moom ca noona ndax ba ngay tàmbali ama woon yéene ànd ak kenn ndax gisoo woon kenn koy àndal sax booba
ak taani ñaareel bi an laa ya tamma mooy mu bañ a roy muftaridun aji julli julli farata bi mutanafilin ci aji naafila day aajoo boo dee julli farata ka lay jiite di julli farata waaye boo dee julli farata moom ka lay jiite di julli naafila du baax mel na ngay julli suba ka lay jiite moom di julli ñaar rakka yoor yoor loolu du baax lay baax kay mooy safaan ba yow ngay julli suba ka julli yoor yoor mën naa ànd yow nga jiite ko moom ndax naafila mën naa topp ci farata attaali su ñetteel bi añ yettaxida mooy mu bennoo alfardaani yaari farata ya fii zuhuriyatin ci nekk di tisbaar aw xëyriha mbaa ku dul moom falaa yusal yi du mën a julli zuhran tisbaar xalfa asrin ci gannaaw takkusaan wala la xaq sa du caageenu safaan ba ñetteel bi mooy fekkee da ngay julli farata muy julli farata itam na seen yaar julli yi doon benn nit ngeen bokk di julli tisbaar mbaa ngeen bokk di julli takkusaan baa ngeen bokk ñu timis waaye bu ke bu fekkee kee dee julli farata kee julli farata waaye bokkuli wuñ kee dee julli tisbaar kee julli takkusaan waaw mbaa kee julli timis kee julli kee yëpp duñu mën a ànd arraadu ñeenteel bi añ yettaxida mooy ñu bennoo ñoom ñaar fil adaay ca joox ga wal qadaay ak fay ga falaa yu sel yi du julli zuhran tisbaar qadaan ci ak fay xalfa man ci gannaaw koo xam ne yu sel yi dana ko julli adaan ci ak joox wala xaq sa du caageenu safaan ba ba tey nee na day aajowoo bu ngeen dee julli ci waxtu wa ngeen bokk di julli ci waxtu wa bu ngeen dee fay ngeen bokk di fay bor waaye bu fekkee kee dee julli ci waxtu wa kee di fay bor duñ mën a ànd mais ne bu fekkoon ne yow tisbaari démb ngay fay dikk bëgg a ànd kuy julli tisbaari tey xam ne kii day jox ci waxtu yow ngay fay du ngeen mën a ànd alxaamisu juróomeel ba almutaabaatu moo di topp ga fil ihraam yi ci armal ga wasalaami ak salmal ba falaw ahrama doonte armaloon na aw sallama wala mu salmal xablal imaam yi ci njëkk ilimaan aw saawaahu wala mu yemoonteeg moom fii himaa ci ñoom ñaar batarat kon yàqu salaatuhu juleem ga juróomeel bi nee na mooy yaar yi moom nga moytu koo defandoog moom rawantina nga di koo njëkk a def mooy armal tàmbali allahu akbar ak noppi asalaamaaleykum yooyu yaar moom boo ko defandoog moom sa julli yàqu rawante na nga njëkk ko koo def li yaar moom faaw nga bàyyi ba mu def ko ba noppi nga door a def ngay bàyyi sa ilimaan armal ba noppi nga door a armal ngay bàyyi ba mu sëlmal nga door a sëlmal wa amma xayruhuma daal ku dul ñoom ñaar fasab ko jiitu nga fii ci moom xayru mubtilin du aji yàq lakinnahu waaye moom xaraamun aji araam la ilimaan bi lay jiite boo ko njëkkee def beneen ponk bu bokkut ak allah ku bari armal ak asalaamaaleykum yu sëlmal niki nga njëkk koo rukoo mbaa nga njëkk koo sujoot kon def nga lu araam waaye du tax nag sëg julli yàqu wal musaawaatu yamoon tega nag fii ci moom makruhatun lu ñu sib la nga defandoog moom nag ba tey dañ koo sib nga bëgg bu ñu nee defandoog moom mooy mu tàmbalee def ak ponk rek mel ne mu tàmbalee sëgg di rukkoo nga daal di gaaw sëgg ànd ak moom mbaa mu tàmbalee sujjóot nga daal di gaaw sëgg ànd ak moom loolu nag daanaka ñëpp koy def waaye taamuwuñ ko dañoo bëgg rek nga bàyyi mu jiitu la ca ponk ba nga gaaw fekk ko ca nit nga bàyyi ba mu rukkoo nga gaaw fekk ko ca bàyyi ba mu sujjóot nga gaaw fekk ko ca noonu lañ ko taamoo faslun al afdalu la gën an yaqfe mooy bu taxawee arrajulu góor al waaxidu guddi genn xan yamin imaam yi walis ndeyjoor ilimaan wal isnaani ñaar fa saaxidan topp lu koog taxaw xalifa foofu gannaawam neen dañoo taamu bu fekkee ne iliman da and ak genn góor rek ñu julli kon dañoo bëgg genn góor ga taxaw ci ndeyjooru iliman te bañ a làng moom dëgg-dëgg xaw koo des gannaaw tuuti bu fekkee mat na ñaari góor mbaalu ko ëpp ak iliman nag kon iliman nekk ci kanam ñaari góor ñi mbaalu ko ëpp taxaw ci gannaawam def sàppe wa tasixu dana wér salaatul ma'mum jullit ma'mum ma ida taqaddama neem jiitu na xalal imaam ci iliman ba lakinnahu waaye moom yukrahu def na ko sib ida kaana ndem nekk na li xëyri daroratin ñeel lu du lor nee na nag ki lay jiite nga féete ko kanam maanaam ki lay jiite yaa ko féete kanam bu féete la gannaaw loolu sib nañ ko bu fekkee du lor a ko waral ba tey sax bu fekkee wër laa làng ak moom nga làng ak moom it dañ koy sib waaye nag bu fekkee ngànta ko waral mooy loro ko waral moo tax nga jiitu ko te fekk moo lay jiite mbaa nga tolloog moom ngànta ko waral kon dis ko sib biñ ko sibee itam dina julli ga mu wér na wat wata joos na dagan asalaatu julli ga mun faridan mbir mu muy aji wéet xalfa soffi ci gannaaw sàppe sa maanaam nga jullee ci gannaaw sàppe sa bañ caa dugg fekk da nga caa mënta dugg moo tax loolu sibuñu ko te du tey julli ga baax na bu fekkee mënan ngaa dugg ci biir sàppe sa dugg ci nag nga julli yow dong nag daru ci gannaaw sàppe sa def nga lu ñu sib ko defee da nga ñàkk ngëneelul boo duggoon ci sàppe sa wax li gën a wër ci yoon maali daal moom daru ci gannaaw sàppe sa doon te yaa ko tey te mën ngaa dugg ci biir it du tey sa julli ga moom wér na wayukrahu def na sib tafriqu suufoo fi tàggale sàppe ya min xëyri daroore ci lu dul lor dañoo taamu lool nag sàppe yi muy jub tey mat ko tey mat waaye tàggali sàppe yi ni ki tàmbali sàppe matagut ñu tàmbali seneen loolu ëpp naa def ñoo bëgg rek sàppe su njëkk sës ci ilimaan mat sëkk ñu door a tàmbali seneen taamu nañ lool sàppe yi jub xocc itam nga xam ne ni ñu ràññee day jub xocc tànk ak tànk mbagg ak mbagg waye jo sana dagan an yusalli bu julle al ma'mum ma'muma fi makan ci bereb ala bu gëna kawé min makan imam ci berebu iliman ba illa an yaqsida dari bu dafa jublu bi dalika ci lolé al kibr ak reuy fa takona tay nek salatuhu jullem nga badala tan di aji yaqo dina ma'mum muy kañu jité mom bu fekké fa muy julle mo fété kaw fa iliman di julle itam du wañi dara tax mu doon gam doon ma'mum da tax amut lu ko yëk dara jaam ci loola lu may nag féete gëm féete kaw iliman da caa jublu daraja ak rëy la ca jublu su boobaam julli ga day yàqu ndax julli dañ koo def ngir toroxlu kon nag bu fekkee fa maamu may jullee daa féete kaw fa iliman bay jullee tam jublu ci rëy kon moom julli ga day yàqu waaye bu fekkee jubluwu ca loolu moom dara du ca nekk walaa yejoo sud dagan an yusalli bu jullee al imaamu iliman ba fi makaarin ci béréb arfaxa bu gën a yëkkatiku mimma ca ba nga xam ne xale yi nekk na ca asxaabu ay àndaaleem in kaana dem nekk na fi xëyri safinat njilul gaal nee na dañuy bañ nag ilimaan fa muy jullee gën a yëkkatiku fa maamum ya di jullee ndegam du gaal nga xam ne gaal day def ay étage bu dee gaal moom ilimaan mën naa nekk ci étage yi ci kaw maamum yi nekk ci étage ci suuf te ñu ànd julli du wàññi dara waaye nag bu fekkee ne du gaal ak lu demee noonu moom fa ilimaan bay nekk gën a yëkkatiku fa maamum yi nekk ëpp naa def ndax jëm iliman ga day nuru daraja bu ca boole nag féete kaw fu maam ye nekk fa in kaana dem nekk na yasiran di aji néew nag ka sibri lu toll ne ab sebre wala weq si te jubluwut bi ci moom alkibra rëy ga fa inna salaata naka julli ga saxiixatan aji wér la fa iliman di jullee lam gën a kawee fa maamam yee jullee bariwut daanaka toll ne ab sebre rek lay toll te iliman jublu ci ak rëy mbaa dara kon loolu du wàññi dara wa in kaana dem nekk na ak sara di ëpp nag min zalika ci loolee batarat kon julli ga yàqu xale yi ci moom iliman ji wa xale yi ak ñoom maamam ya su fekkee nag fa iliman di jullee daa gën a kawee fa maamam ya jullee lu ëpp ab sebre waaw su boobaa kon julleem day yàqu ñam doon jiite itam seen julli yàqu faslu li ab dog la al jumuhatu julli juma fardu xaynin faratay jëmm la maanaam julli juma ku mu war moom faratay jëmm lay doon ci yow nga xam ne faaw da ngay dem defi ko rek sa jaam door a wàcc waaye kenn mën la koo defaale wasax yu dox ga te moy dem ga rek ilayha jëm ci ma wajibul aji war la halal baangi di ci aji sori xabla ni day ñëk nodd ga bi xadri ma ci kem la nga xamne yudriku dana ko mëna jot wa halal qaribi ak ci aji jege bi zawali samsi ci reccu jant wa waxe la waxes na ne bil azani ca nodd ga neena dem ci juma ja mënta ñak ndax juma nanguul tollole faaw rek dañ koy defé ci dut juma ja babu juma ja fessé de sus ca mom ci biti ba waaye mëni su ko tollole su ko defee nee na boo soree na ngaa war a jóg ci waxtu woo xam ne bu la jàmm rek dogee faaw nga fekkee julli ga bu fekkee da ngaa jege nag moom mën ngaa bàyyi bàyyi ba ilimaan ñëw ba ñu noot nootu ñaaral gi nit ki boo nekkee ci kër yi sës ci penc mi sës ci jumaa ji moom bu la neexee bàyyi ba ilimaan ñëw ba ñu noot nootu ñaaral nga door a jóg waaye su boobaa itam nag jóg daal ne jot moom am na sax ñu wax ne bu ci sibaar jotee rek nga war a jóg dem waaye wax ji gën a wóor daal moom mooy fekke jege nga mom nga bayyi ba iliman ñew bañu nod nodu ñaarel wali wujubi ha ñal na waram nga sabahatu shurut juroom ñaari sart lay tax julli juma war la nak juroom ñaari sart la al awalu bu jëk bi at taklifu modi ak kalafe fala tajibu du war ala sabiyin ci gone wala majnun du ciagon ab dof wala majnunin wa nahwihima ak ku mel na ñoom ñaar ene bu jëk bi moy nga nek mu kalaf fekke da ngay gone mba da nga di ab dof su boba kon du la war manam ko anta sagom rek lañ bëgg wax donte kuy xam la itam julli nga du ko war atani ñaarel bi al hurriyatu modi ak ngor fala tajibu du war ala habdin ci ab jam wala man du ci ak yeen ko xamne fi nek na ci mom shaibatu hurriyatin raxuk ngor walakin waaye yustahabu def na sopp la hoo ñeel jaam bi wali sabi ak ñeel gone xuduruha ak teeweem mooy teewe jumaa ja nee na lay tax jumaa war la mooy nga nekk gor jamono ye amee gor ak jaam kon nga nekk gor mooy tax jumaa war la waaye boo nekkee jaam du sotti mbaa laal nga ci njaam ni ki kuy jot boppam te àgg lagut mbaa kuñ gannaawal ñu wax mu dabbar kuñ gannaawal mooy ku ab sanga wax ne ko su ma deexee gore nga ba kuñ gorel lenam bayyi lenam ba kuñ gorel jëm ci dele dele dele ba ñewagul yépp laal nañ ci ngor waye du tax julli juma war leen teewul nga sopp nañ jaam bi bu ci amé ndigal mu dem julli ji juma buñ né jaam bi julli juma waruko ba ka laal ci ngor te matalu gut ak ak ngor julli juma waruko du té ko ci def rek bu dal di wécc satisbar du aajo ngay def tisbar boole ca boko julle rek mu dal di wécc sa tisbar ci bis boba ak talisu ñettel bi ak dukori yetu modi ak ngor nek di gor fala ta jibu war xalam raat ci jigen jigen julub juma waruko gor rek la war wax ni sax bu dee ndaw lu jigen lo xamne dañ ca ragal ne bu téwé dana fitnal gor ñi sax day alam ci mom mu dem bu fekkee ndaw lu jigen la ragaluñ ci fitna nak dañ koy sib rek yam ci bu dee màggat mu jigéen boo xam ne góor ñi gësuruñ ko nag moom dagan na mu dem julli ji juma dagan na mu dem ci juma ja arrabihu ñeenteel bi al iqamatu moo di ak sax fala tajibu du war ala musafirin ci aji tukki illa an yanwiya ndare bu dafa yéene iqamata arbaxati ayamin sax ñeenti ban lay tax juma war la mooy nga dëkk fa juma ji nekk mbaa nga yéene faa sax ñeenti fan waaye bu fekkee dëkkoo fi te yéene woo faa sax ñeenti fan ko julli juma goru la du té nak boko julle mu wécc satisbar rek al khamisu juromel bi al istitanu moy dëkke ga bi mawdihin ci ab bërepp yustawtanu bop def na dëkke fi ci mom dëkke gogu nga xamne mom la tuddu sartu war la sartu wër la boko dé sét sartu war la moy bala ñoo saña tabax juma sax fofa dañuy sartu mbooloo ma bari bari waay boo xam ne daañu mën a taxaw seen mbiri bopp mën naa def itam nag ay dëkk dëkkaan yoo xam ne bu dajaloo rek mat mbooloo ñu seet ca benn dëkk ñu def fa jumaa waaye nag dañuy sart ñu dëkk dëkku ku nar a sax di wéy ci misaal ay pël buñ dajee ci béréb lu ñu bari bari bari wala naar yi daa sàmm ca bu njëkk ñoom duñu sax fenn daanaka di wéy lu may rek ñu ngi fay gis ndox ak ñax mañ ñi sàmmi waaye buñ demee ba gisatuñ fa lañ ñi sàmm rek dal toxu dem feneen ñu mel noonu nag muy pël yi muy naar yi buñ dajaloo ci benn bi rek lu ñu bari bari duñu saña tabax juma ndax dañu jàpp ni ñoom naru ñoo dëkk di wéy bu ñu dogoo nag bu ñu dogoo nag dëkk di wéy nag waaw kay kon moom su mbooloo mu bare ni ñu waxoon mën nañoo tabax juma kon bala ñoo saña tabax juma rek na mbooloo mu bare noonu te it ñu fas yéene dëkk di wéy xam ne yàlla leen fay doxali waaye dëkk di wéy lañu nar bu loolu amee ba noppi nag boo dëkkee ci biir dëkk bu moom loo sori sori rek julli si war la bu fekkee dëkkoo ca dëkk ba jumaa ja nekk nag ci beneen dëkk nga nekk dañuy seet sa diggante ak jumaa ja nu mu toll bu fekkee mi ngi toll ci juróomi kilomètre ak genn wàll jëm juróom benn julli si war la bu ëppee loola nag julli si waru la bu la soobee rek nga sàkku tuyaaba ñëw julli si su ko defee julli ajuma ga wecc ci sa tisbaar dana àgg léegi sax ci wax la naa la bokk na ci sarti juma war la nga jege jumaa ja dana ko leer waaye su boobaa na nga takk foofa ne boo nekkee ci dëkk ba nga xam ne ci jumaa ji nekk daal moom faaw rek julli si war la ak loo sori sori tax dëkk ba rëyee dëkk ba mën naa mat ay kilomètres yu bare bare boo nekkoon cat lay dutee nga war a julli si boo nekkee nag ci beneen dëkk bu bokkut ak dëkkub jumaa ja da ngay seet sa digganteeg jëmmi jumaa ja nu mu toll su tolloo ci juróomi kilomètre ak genn wàll jëm juróom benn julli ji war na la su ëppee loolu nag julli ji waru la bu la soobee nag nga dem julli ji sàkku ca tuyaaba julli ko ajjuma ga wecc sa tisbaar assaadisu assaadisu juróom benneel bi al qurbu mooy jege jumaa ja bi xaysu laa yëkkoonu ci foo xam du nekk min xaa ca moom fi waxtihaa ci waxtoom wa xalaak sa ci lóob min salaasati am yaalin ci ñetti miir waxoo moom nag alxadur mooy kem ba àllësi ba nga xam ne yablu xoo dana ko jot asawtu kàddu ba arrafix ngay aji yëkkatiku ita kaanat dem nekk na arriyaaxu ngelaw ya saakinatan di aji dal wala aswaatu kàddu ya itam nekk haadi atan di aji dal wala mu asdinu aji nodd ca itam wala mu asdinu aji nodd ca itam nekk sayitan di aji xumb kàddu waaw nee na bu fekkee dëkkoo ci dëkk ba jumaa ja nekk lay tax julli jumaa war la mooy nga bañ koo soree lu ëpp ñetti miir ñetti miir bu fekkee ne fa nga dëkkee sa digganteeg jumaa ji dafa toll ci ñetti miir rek mbaamatu ko sax julli jumaa ga war la waaye bu fekkee ëpp na ko nag julli jumaa ga waratu la bu la neexee ñëw na def si ko bu wecc sa tisbaar rek waaye boo xasee soree lu ëpp ñetti miir moom julli jumaa ga waratu la da ko tolloole nag ci soriwaay boo xam ne buñ dee noddu te amul ngelaw lu lay tee mën a dégg amul kàddu yu soow yu lay tee mën a dégg te kay nodd am na kàddu bu baax a baax da nga dégg nodd ga noonu la ko tolloolee waaye waaye mën ngaa jàpp rek takk biñ la waxoon léegi ci dëkk ba nga dëkk te du dëkkub jumaa ja daal bu tolloo ci juróomi kilomètre genn wàll jëm juróom benn julli si war la bu ko ëppee julli si waru la wa mabdawul am yaali tàmbalikaayu miil ya asalaasat ya di yet minal manaari tàmbale na ci soroor ba waxi la waxees na ne min tarafil baladi ma ngay tàmbalee catul dëkk ba nee na boo dee seet nag fa nga dëkk ndax julli jumaa war na lu mooy waru la tey na nga koy toll ci ñetti miil te am ñu ne da ngay seet ñetti miil yi mu tàmbalee ca jumaa ja fa soroor ba jooju wax nag moo gën a wóor am ñu ne da nga koy tàmbalee catul dëkk ba loolu nag xam nga mën naa wóote loolu fu mel ne Tuubaa fa jumaa ji nekk ak catul dëkk ba gis nga na mu soree kon tàmbalee natt ca fa jumaa ji nekk ak tam natt ak tàmbali natt fa ak tàmbalee natt fa catul dëkk ba fa dëkk ba yam soree na lool lool ba ci suñu dëkk bi nga nekk rek gis nga ko fa jumaa ji nekk ak fi dëkk bi yam fii suñu gannaaw soree na wax ji gën a wóor nag mooy da ngay seet rek fa jumaa ji nekk ak fa nga dëkkee te bañ a seet catul dëkk ba ak fa nga dëkkee wal miilu miil xalal mashhur ci lañuy siiwee commencé et yi na mu xasati dikke alfa diraahi ñaari junni xasab la nee na miil dana ko leeral bu tolloo ci di wax salaatul qasri na salaatu safar tolloo ci wax julli tukki ba meetar xewe gu daal dañ daa wax ne benn miil ñaari junni xasab la wa tahdiidu limité ga bil masaafati ca diir ba almad góorit ba di bi mu tudd innamaa huwa naka moom fi xaqil xaariji nekk na ci aqi aji génn ja xan baladul jumuhati walis dëkk ba jumaa ja nekk wa amaaman daal ka nga xam ni huwa moom fii xaa nekk na ci dëkk ba ba tajibu dana war xale yi ci moom walaw kaan ak doonte nekkoon na minal masjidi tukkee ci jàkka ja xalaa sitta ci am yaalin ci juróom benn mil ne ne boo déggee ñu naa sa digganteeg jumaa ji su ëpput ñetti mil day fekk yow dëkk ba nga nekk bokkut ak dëkk ba jumaa ji nekk waaye bu fekkee dëkk ba jumaa ji nekk ca nga nekk moom loo sori sori rek waaye julli si mel ne boo nekkoon Dakar benn juma nekk fa itam rek te gis nga Dakar ni mu yaatoo xam nga faa nekk foo xam ne kilomètre yu bari lay doon du tee julli si juma war la wala Touba itam boo fa nekkoon benn juma bi nekk fi loo sori sori rek war a julli si. asaalihu juróom-ñaareel bi asihatu mooy wér ga falaata ji bu du war xalaa maridin ci aji tawat koo xam daa tawat bu mënta dem juma ja wala bu demee dana sonn lool coono boo xam dana jéggi dayoo kon ba tey juma ji wàcc na ko. wa in saxa ndee wér na xabla an tuqaama njëkk dee fi ko taxawal la simatu kon mu war ko su fekkee daa wéradi woon waaye nag laata ñuy julli jumaa ji tane na tanek mën a julli ji su boobaa kon julli ko daal di koy war